famille yi réseau bi en tout cas am gis nañ ni aussi formation rek doyul parce que so amé formation té yow amo aussi ko la jàppale pour nga am liguey bu ko rogué formation bi daanaka njëriñam du bëri mais gis nañu au delà de la formation le président de la république Macky Sall dafa teg yeneen yenen structure par exemple muy DER muy le ministère de la microfinance Nous, ñoy accompagner aussi tay le réseau ñoo leen permettre à ñu am une unité de transformation une unité de transformation bi est fii DER moo à hauteur de 7 millions. Et à côté aussi il y a le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire aussi qui accompagne les groupements de femmes. kon jigéen y yéen parce que si vous avez un am métier ñu jox un ay financement nga am matériel ñu jox une subvention qui te permet de rouler de mën des jëndi ay marchandises ou des matières premières ñëw jaay ko am aussi li ñu oy FRA autorisation de mise sur le marché avec le ministère du commerce donc damay wax ne ñun les médias pour moi état bi en tout cas réseau Rafet wala en tout cas groupement de femmes yi nekk Rufisque Ouest tey état bi wàccoon na ak ñun. nous 3FPT dafa nekk kuréel le président de la république Macky Sall daf ko en 2014 manam fukki at ci avons ñu tàmbali suñuy activité en 2016 ci 2016 ci dire Bob 2016 à 2023 ci daaw. président mi ngi koy wax ci discours à la nation wu 31 décembre bi jot nañu former presque ñeenti téeméeri junni ci ay nit ci walu bobu nak fi ñi tassé tay ji ni wa commune am ngeen ci walu lool mo waral ñun pàcc bu ñëk bi mom moy gunge entreprise yi ñi fay liggéeyee ñu jaglél ci nak ci yaatu entreprise yi ñu né dañ ci accompagner tamit comme kuréel yi melni yeen ay groupement de femmes pour nak ñom seen jëm bopp jàngal nañ leen ni ñuy nappee ñu mën a bokk ñu mën a dem ba ñoom ëllëg ñoom tam ñuy cotiser pour mën a jàppale ñeneen ñi ne si ginnaaw loolee leen di ñaanal ci wàllu accompagnement boobu noonu ñuy defal jigéen yi wala auto groupement de femmes wala réseau yi dafay am formation technique formation technique moom la ñu gis nii ci table bi ñu formé la ci tapisserie ñu mën la formé ci pâtisserie ñu mën la formé ci mécanique nooy defaree fauteuil teinture nooy pàcc yooyu yëpp dañ ci tagat ñu ne nag duñ ci yam lélé nak nga gis ko xamné né ne amna formation mën na limi def mais boko né am micro bi rek mu jox ko Oumy wara jox ko Fatou wara jox ko Mariam sank seet nañ fu bu mel non donc ñi former également tam ci walu alphabétisation ñu mën former également ci walu marketing donc ci loolu la leen di ngir mëna a gëstu. internet bi neex na lool waxtaan bi neex na lool fecc mi neex na lool mais tam dafay baax ngeen jël tamit seen jotaay bi yenn saa yi ngeen ciy gëstu lan moo mën a ne ci lan lañ gën a mën a yëngoo